thank you de fidèle internaute Sénégal 7 ravi de nous retrouver dans votre nouveau numéro entretien spécial euh, comme li ñu koy faral di defee saa su nekk sous évolution actualité amee dinañ fi dalal gan euh, bu ko defee ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi étant donné que actuellement Sénégal lépp c'est dans l'urgence ba tax na rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy les euh, profils dinañ leen fi woo waxtaane li nga xamante ni moom mooy réew mi donc tey dalal nañ fi ki nga xamante ni moom mooy monsieur Amadou Amadou Ly Akile donc duñ ko présenté ci sénégalais ndaxte moom allié la ci li nga xam ne moom mooy. la coalition Diomaye président ginnaaw bi nga xamante ni sampoon na ndëndëm fas yéene bokk ci jongante bi nga xamante ni moom moo waroon moo amoon le 24 mars passé par la suite mu nekkoon adjoint ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Mbaba Guirassi nekkoon adjoint eh, directeur campagne du MOES moom mu nekkoon ak adjoint bi eh, doon ko soutenir ci li nga xamante ni moom mooy wàllum stratégie ak li nga xam ne moom mooy finance mais aussi doon jàppale ki nga xamante ni moom mooy le nouveau ministre muy eh, Birame Souleye Diop ci poste bi nga xamante xamante ni aussi euh, doon na ko occupé ci biir euh, coalition bi en même temps mu nekk euh, DG des clubs des investisseurs je crois que c'est ça. non. Euh, administrateur administrateur au niveau du club des voilà club des investisseurs donc xëy na fonction yi mu cumulé moo tax mais dafay baax ñu <laughs> présenter ko bu ko defee sénégalais yi xam ko donc monsieur Amadou Ly Akile maa ngi lay nuyu. <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay fay euh, Lalla di euh, di la doon nuyoo di nuyu itam euh, mbooleem yi auditeurs ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan ñooy teelu seen émission yi ci seen plateforme yi donc plateforme Sénégal set yi. di am mbégte ñëw tey euh, toog yow bokk ak yow waxtaan bi di nuyu itam euh, ñi nga xamante ne ñooy liggéeyee ci euh, kër gi di jiital ci nuyu bi évidemment le président bi nga xamante ne moom mooy borom kër gi mm-hmm. comme ni ma ko waxee di am mbégte ñëw tey toog waxtaan ak yéen ci actualité wu Sénégal. bon cumul bu ñu wax cumul parce que <laughs> bu ñu nee cumul des fonctions day mel ni dafa am lu muy. <laughs> voilà bii du cumul des fonctions bii du moom dañ jàpp ni rek bon. lii dafa am lu muy wane quoi mooy sunu mhm. yitte. Mhm. bi ñu am ci Sénégal parce que effectivement wax nga ko yàlla def na tey dañu jiite benn parti politique bu tudd Yeesal en marche. Mhm. Euh, demoon bokkoon ci ñi nga xamante ne dañu façon yéene dàggan baatu askan wi ci élection présidentielle bi en tant que candidat. Euh, yàlla def ñu dem sax ba ci deuxième tour parrainage bi jàll premier tour bi mais tirage au bi nga xamante ne dañ ko amoon. mu xawoon a doy waar nekk 87e sur 93. <laughs> da ngay jàpp ni position bi moo tax. waaw mais loolu sant yàlla la sant suñu borom la parce que encore une fois mooy li ma wax ni ñëpp tey gis nga encore une fois on en a une preuve éclatante. parce que woowoon nañ ma ci beneen télé. juste après parrainage bi noonu di ma ci laaj sama xalaat ma am lu ma ci waxoon. Mhm. delloo yëpp ci yàlla. tey euh, boobu élection bi amagul tey élection bi am na te gis naa ni defe naa képp kuy sénégalais. war ngaa mën a jàng ci élection bi nii ni yàlla wane na boppam waaw donc puisque yàlla wane na boppam nag donc war ngaa mën a nangu ni que lépp lu war a am suñu borom moom def na ko ba pare donc lépp loo am rek jàppal ne mooy li nga xamante ne yow moom nga yellool moom la la suñu borom jagleeloon pour le moment te xamoo luy ñëw ëllëg donc doyloo ko nga santee ko moo tax ñun du ñun bokk ñu benn yoon ci ay affaire de candidat recalé maanaam yu fippu pour xaw ma lan mooy euh, kii bi plateforme candidat spolié dugg ci affaire une notion de candidat spolié candidat recalé dugguñu ci loolu ba ñu newee deuxième tour bi jàlloo leen dañoo toog euh, yàlla def nag ñu ñi nga xamante ne yàlla defoon na ñu jàll ku ci nekk si ñoom jéem nga ñëw waxtaan ak ñun pour xool naka la ñuy ànd ak mm-hmm. ba ci yàlla ba yàlla def le président tey président mais à l'époque candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. euh, jokkoo ak ñun. yónni ñu itam ay ndawam ñu waxtaan ak moom déggoo ak moom ndax ay gis-gis yoo xamante ne euh, euh, bokk nañu euh, ci wàllu bëgg ñu jiital gën a jox ndaw ñi seen seen cër ci réew mi parce que jàpp nañu réew moo xamante ne ndaw ñee ci ëpp ci lim war nañoo mën a dénk réew mi ndaw ñi. Mm-hmm. ñu ànd ak nag suñu mag ñi ñu. teete ñu accompagner ñu. Mm-hmm. ñu xool naka naka la réew mi nar a doxee. ci gis-gis maanaam ci wàllu jiital projet boo xamante ne dafay dafay dafay dafa bëgg a jëmmal. Euh, moo moom sa bopp souveraineté le fait que euh, euh, nga bëgg a jëmal aussi bëgg sa bopp muy patriotisme parce que ñun dañu gëm ne réew mi mënoo ko defar bu fekkente ni sukkandikuwuloo ci li ñu woowee le secteur privé national mhm. défi yi fi nekk yi gën a métti les notions d' emploi et cetera lan kan moo ko mën a faj c' le secteur privé c' pas l' qui peut créer des emplois mhm. c' le secteur privé qui peut créer des emplois mais si le secteur privé n'est n'est pas boosté dafay jafe pour que mu mu a dem du ñàkk ci biir émission bi dinañu mën a ñëwaat ci question yooyu mais dina baax ñu ñëw ci parce que ngay jël ay royukaay comme le président Obasanjo mm-hmm. ba ko yàlla tegee euh, à la tête du Nigeria lan la def dafa woo gaay encore une fois bëgguma li ouverture kese la bëgguma ci ñëw bëgguma ci yàgg mais jàppal ni daal ce sont des sujets extrêmement importants loolu moo tax ñu finalement ñu daal di dem décider mhm. accompagner euh, la candidature du président Diomaye et euh, rejoindre ko au niveau de la coalition Diomaye président euh, yàlla def comme ni nga ko waxee ñu nekkoon aux côté de de alors on n'a pas accompagné euh, Birame Souleye ah Birame était euh, dans la campagne on était à côté di jàppale Euh, nu mu tuddati encore Moustapha Guirassy en tant que directeur de campagne mm-hmm. man ma nekkoon directeur de campagne adjoint en charge de la stratégie et des finances mm-hmm. et euh, Birame Souleye nekkoon directeur de campagne adjoint en charge du suivi des opérations mm-hmm. euh, yàlla def na tey ñu gagné donc ñu koy santé suñu borom di ko gërëmee sénégalais yi itam toutes nos félicitations alors merci comme ni nga ko waxee dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy point yi ñu fas yéene waxtaane bokk na ci visite officielle bi nga xamante ni le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye na ko yi dem rendre visite nos pays frontaliers euh, bu ñu jógee ci loolu aussi dinañu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy wàllum programme bi mu proposées par rapport à la souveraineté de ce pays plus précisément alimentaire énergétique ainsi de suite donc bu ñu jógee foofu tamit dinañu ñëw ci li nga <laughs> xamante ni actuellement mun nañu wax ne moom moo lëmbee Sénégal muy wàllum retrait passeport bi ak euh, <laughs> réduction réduction des comptes mhm. euh, bu fekkente ni dans un pays normal la ñu nekk ñu bëri jàpp nañ ne loolu war na am donc loolu dinañ la ci laaj sa xalaat sa gis-gis ak aussi euh, politique bi nga xamante ni moom la ñu war a mettre en œuvre ci gouvernance publique bi pour mu mën a jaar si yoon moo xam administration moo xam euh, lépp loo xamante ni nii tey sénégalais bi war na ci am accès mhm. moo xam digitalisation bi nga xamante ni war nañ ko def au niveau des entreprises des écoles ainsi de suite dina mun a faciliter le sénégalais bi lépp loo xamante ni bëgg na koo xam wala mu am ko ci réewam mu am ko donc un peu loolu mooy ossature bi nga xamante ni moom nañu fas yéene waxtaane ma bàyyi la nga ñëw ci premier point bi déjà waaw euh, effectivement gis nañu ni que euh, son excellence le président Bassirou Diomaye Faye et def na benn sortie bërki démb dem seeti suñu kilifa diine yi muy loo xamante ne man dama koy dama bokk ci ñi nga xamante ne dañ koy rafetlu parce que euh, dama ni dama jàpp ni loolu dafa am loo xamante daf koy wone ci yéene parce que li gën a am solo c'est euh, et ça ça va important parce que on a fait un programme un projet une proposition am loo xamante ne dañ ko dig askan wi te loo xamante ne sur cinq ans la nar am mais li wolof njaay naan cin bu bu bu naree neex bu baxee xeeñ donc ça veut dire que dès les premiers actes on peut quand même commencer à voilà c'est pas en un jour que ça va se passer mais dans les premiers jours premières semaines premiers mois on va commencer à voir des choses yoo xamante ne sur tous les aspects nag aussi bien li nga xamante ne euh, joni joni la ak li nga xamante ne dafa nara a laaj euh, voilà à long terme loolu tamit bu ñu tegee jéego yu ñëkk yi rek même bu nekkee c'est des boo gisee li ñu ñëkk a teg rek xam ndax lii euh, lu nar a dem la wala lu dem rafetlu parce que Euh, encore une fois dafa am lu muy wone ci warma bi nga xamante ne jox nañ ko kilifa diine yi te dañ dañ ko yellool parce que man dama jàpp ni euh, dañoo yol yor un rôle de stabilisateur sociaux ci réew mi maanaam dañu am dañu doon ay nit ñoo xamante ne ay wéeruwaay lañu bu ñu bu yëw réew mi naree yëngu wala bu xawee yëngu dafa ñëpp dañuy daw euh, dem si ñoom uti si wëri uti uti wàllu si ñoom te loolu donc dafa baax président jëmmal ko am na sax ñu demoon fii ba ne il faudrait un ministère du culte et pour gën leen a fësal jox leen place boobu noonu officiellement bon euh, je pense que le ministère de l'intérieur am na lu mu ci gérer peut-être que les affaires sociales am na am l'action sociale am na ñu ci gérer je ne sais pas exactement comment c'est mais ce qui est certain c'est que am nañu place bu mot place boo xamante ne dañ leen ko war a jox te moom moo jiitu ci place yëpp ndax euh, jàpp naa ni président daf ñu njaboote ñun ñëpp te euh, ci biir njaboot gi euh, dafay dafay baax mu wax ak mag ñi d'abord puis mu wax ak ñii puis mu wax ak jigéen ñi wax ak ndaw ñi wax ak et et donc dans l'image d'une famille tey euh, kilifa diine yi la tàmbale gëm naa ni certainement le secteur privé dina ñëw parce que projet bi nga xamante ne ak yéene bi nga xamante ne moom la ñu am ci réew mi mënuñu ko def fekk liggéeyuñu ak. le le secteur privé national ce n'est pas possible. mënuñu ko def fekk dooleeluñu le secteur privé national te euh, liggéey ak le secteur privé national dooleel secteur privé national mënta am fekk waxtaan amul ak le secteur privé national wax ma sax waxtaan benn yoon mais waxtaan ak di waxtaan continuellement. Mhm. donc euh, vraiment pour dire que c'est une à mon avis euh, lii tàmbaleel kese la. dafa tàmbale kilifa diine yi parce que ñoom lañu ñu war a tàmbale ndax rôle de stabilisation sociale bi ñu am ci ci réew mi te euh, encore une fois ñu koy rafetlu beneen bi ci nekk mooy du ñàkk am na euh, lu ñu fa wone itam parce que am na ñoo xamante ne ci campagne bi bon euh, jamono ñu sànni ay xeer tuuti di gëmloo nit ñi peut-être que Euh, ni ñu koy waxee ci le le le candidat à l'époque <laughs> était un potentiellement salafiste euh, gis-gisam ci wàllu diine wuute na ak ñun gis-gis bi ñu am ak tarixa yi nu mu amee doole bi Sénégal discours buñ doon porté à son endroit à l'époque waaw di ko di ko di ko jëm baaraam tuuma di ko teg loo xamante ne di teg ci ndoddam loo xamante ne xëy na euh, méngoowul ak moom gis-gisam xalaatam et xam nga diine mooy en plus loo xamante ne c'est personnel quoi mais c'est extrêmement important muy bu chrétien bi muy bu jullit bi ñu xam ne ni que euh, war man lañu sunu kilifa diine. et je pense que c'est réponse la. jàpp naa ni c'est un c'est un élément de réponse xaw ma ndax daf am solo mooy euh, la xam nga communication a am solo li ngay wax mais perception mhm. neex mais nit ñi li ñuy jàpp loolu mooy li gën a am solo bu fekkee ne da wax lii nit ñi jàppale. Mhm. xamal ne kon yow tu es à côté de li ngay jéem a def. Mhm. et li am solo man li ma gis mooy ñëpp rafetlu nañ ko ñëpp rafetlu ñun ñu ni que. wane na fa oyof teef ñëpp rafetlu nañ ko te loolu effectivement ay mandarga la yoo xamante ne dafa commencé feeñ ci moom pour parce que y a peut-être beaucoup de gens yoo xamante ne xamuñu ko woon véritablement donc il le découvre et quand il découvre li leen di ñëkk a mooy on te dit dafa dal dafa tey dafa yaru et cetera euh, bon tuuti na sax parce que yàlla def na tey jii nii Euh, même bu fekkente ni sorante wuñ ci ay at euh, mën nañu jàpp ne ay maas lañu ci ay at ay maas lañu peut ci ay parcours professionnel mhm. nekkatuñu ay maas ba ko yàlla jëlee def ko le mhm. président de la république du Sénégal mu njaboote ñu ñun ñëpp mhm. donc war nañ ko warmal sax ba nga xamante ne bu ñuy wax ci moom mënuñ war ñu tudd lu jëm ci yaram waaw mais euh, ñu jégal ñu rek pour comprendre fi may waxee parce que mag ñi ñoo ko wax et donc ñu ñu koy ñu koy ñu ciy jaaraat encore une fois dafa di loo xamante ne ce sont des choses et sénégalais loolu mooy li gën a li ko gën a amal solo mooy nga nga doon ku yaru nga yëg leen nga weg leen et cetera loolu noonu boo leen ko mayee rek moo leen ëppal ay milliards yooyu jël leen ko jël boo indee ces milliards mën nañ la ko lekkal mais bu àndut ak yar ak weg ak yëg bon boo demee sa yoon après ñu jàll ci leneen mais boo leen jiwee loolu rek Mm, dina am loo xamante ne dañ la ko danañ dañ danañ la ko rousser et donc c'est extrêmement important parce que am na ñoo xamante ne euh, et on pourrait remonter plus loin parce qu'on a essayé ici à un moment donné pour certains de dire oui ce sont des gens euh, belliqueux nangam sangam et cetera donc am na loo xamante ne soo ko wanee rek dina daral xelu mag ñi dina daral xelu nit ñi te jàpp naa ni loolu mooy li jot a feeñ ci ci ñaari visite yooyu noonu mm-hmm. bu loolu weesoo wax nga effectivement visite yi nga xamante ne annoncé nañ ko mu jëm ci euh, dem euh, seeti suñu dë suñu mën nañoo jàpp suñuy dëkkandoo yi. Mm-hmm. mooy euh, Mauritanie ak Gambie. ma jàpp loolu tamit lu war la parce que laata ngay dem di fu gën a sori partenaires financier yu mag yi et cetera c'est vrai l'Occident l'Orient notamment du côté de la Chine et cetera. Mm-hmm. tout ça c'est bien on a besoin de nos partenaires bilatéraux multilatéraux et cetera mais. clairement dëkkandoo mbokk la donc ñun tey dañu war a commencé wee te loolu la def mooy dem seeti Gambie bi nga xamante ne moom ak Sénégal benn lañu. bii Sénégal sax daanaka la nekk euh, bien que ce soit un pays indépendant autonome et cetera et euh, de la même manière ñu seeti ñi nga xamante ne aussi suñuy dëkkandoo sës rëkk si ñun ñu bokk ak ñoom dex muy le fleuve Sénégal ñu bokk ak ñoom ay ressources naturelles yu am solo te euh, ci jëm ci lu jëm ci suñu wàllum koom ñu am yaakaar bu mag. Euh, wéer ko ci euh, en partie ci loolu mm-hmm. parce que man dama bokk ci ñi nga xamante ne aussi loolu du ñàkk nañ ci ñëw bu émission mayewee mm-hmm. dama bokk ci ñi nga xamante ne dañu jàpp ni waruñu jël sunu lépp ci wàllum koom bëgg ko wéer ci ay affaire pétrole ak gaz c'est bien dara la mais du du du du du c'est dangereux même de penser que ça va résoudre nos problèmes parce que ça ne résoudra pas tous nos problèmes mm-hmm. mais c'est quand même quelque chose d'important et euh, dafay baax donc ñu dem toog waxtaan ak ñooñu beneen bi ci nekk mooy le président la Mauritanie mandat am dafay waaj a jeex du ñàkk incha allah mu demaat ci élection lañ jëm ci mm. lu yàggul dara Euh, du ñàkk bu yàlla def mu falwaat yàlla rek a xam euh, ñun moom lañ koy ñaanal parce que yàlla def na ci suñu wàllu liggéey aussi ñu ngi liggéey foofu en Mauritanie euh, en dehors des activités politiques professionnellement tey ñu ngi liggéey Mauritanie di fa liggéey projet bu am solo sax pour réew mi donc dafay di loo xamante ne dañuy ñaan stabilité itam ak continuité foofu noonu pour que li ñu tàmbale ak ñoom mu mën a continuer ci at yi ñu dëgmal incha allah mm-hmm. donc ñoom ñaar bu ñu ñëwandoowee quasiment en même temps Euh, ñu ñu mën a joxante loxo euh, euh, fasante coloré fas nag sumbandoo ay ensemble ay projets yoo xamante ne day tax vraiment coopération bi nekk si diggante ñaari ku nekk mën si gis sa bopp ak cohésion bi absolument c'est important donc dañuy continuer rek ci beneen point bi mm-hmm. wax naa ko muy wàllum souveraineté bi nga xamante ne nii moo xam en question alimentaire énergétique ainsi de suite donc fi ñu koy njëkkee mooy tey lan yéen mécanisme nga jàpp ni tey moom moo war a nekk moom moo war a permettre tey gouvernement bu bees bi fi nekk mu mun a am euh, souveraineté alimentaire parce que boobu mun nañu jàpp ni moom moo gën a primordial muy euh, cherté de euh, euh, cherté de la vie bi nga xamante ni actuellement sénégalais yi ñu ngi koy subir te tey boo subventionné aussi mën nga subventionné mu wàññeeku mais après mun na la dabaat donc foog ñu am ay mécanismes yu fort yoo xamante ni moom mooy permettre mbir mi mun a dem lu sori. waaw dëgg la en fait ce qu'il faut comprendre mooy ni que bon da nga wax ñaari ponk ponk yoo xamante ne dañoo dañoo dañoo comment on appelle ça ils sont reliés. Mm-hmm. mooy la souveraineté. et la vie chère. Mhm. daf ci am benn boo xamante ne moo jiitu. Euh, beneen bi nag quoi waaw. Mhm. la vie chère elle est déjà là. Mhm. parce que loolu ñëpp constaté nañ ko Sénégal euh, dund bi cher na moo xam ci wàllum lu ñuy lekk denrées alimentaire yi moo xam ci wàllu dëkkuwaay euh, location wala kër booy tabaxal sa bopp moo xam ci wàllu dembeeg dikk bi transport moo xam ci wàllu sax jàng tey foofu lañ toll. ndax jàng bi sooxe na sooxe boo xamante ne tax na tey sénégalais yi ka mën ak ka yëpp. moom mu ngi daw pour xool nu muy dugalee doomam ci école privée loolu defe naa ñëpp seetlu nañ ko fii nii te donc forcément euh, dafa bokk ci yi nga xamante ne euh, gouvernement bi war na cee taxaw pour que ñu mën a euh, teggi genre charge yooyu noonu mu nan loo xamante ne dafay wàññi dafay néewal doole gafaka borom kër gi maanaam le pouvoir d'achat de de de de de des ménages sénégalais parce que clairement tey bu fekkente ni on fait les réformes qu'il faut dans le système éducatif ba nga xamante ne. fii fii fii parce que quand même il faut se rappeler que ñi fiy génn ñëpp ba ñoom ñi <laughs> école mhm. ñun ñi ñu suñu génération bi yëpp ñun on n'a jamais étudié dans des écoles privées amul mhm. c'est école publique la ñu ba egg fi ñu egg fii nii euh, donc ñi fi génn président Macky Sall président Abdoulaye Wade leur excellence ñi may wax ñi ñëpp ah ñoom ñëpp ci école publique lañu jaar mais tey lañu toll ci génération boo xamante depuis dix quinze ans maintenant ñoo xamante bu ñu ñoom bu ñu parejee seen jàng da gis ni que li ci gën a di fay charge yooyu noonu dafa diis trop. Mhm. donc ça il faut qu'on qu'on qu'on qu'on revoie ça mais école publique yi il faut ñu taxaw ci pro vraiment ministre Guirassy mhm. il a un grand chantier chantier bu bu bu am solo la euh, wax nga ko sànq sax si say baat lu jëm ci wàllu digitalisation mais loolu dinaa ci ñëwaat parce que mhm. li gën a prioritaire bala ngay lijjanti sax ay affaire de dem école mooy lekk nit bala ngay bala ngay nekk bala ngay mën a lijjanti leneen nga nekk ba pare nekk nag li tax nga nekk mooy nga mën a lekk nga a après ngay lijjanti loo sol ak yu kenn xam xam nga mën nga am benn yére di ko sol année bi yëpp amul benn problème mm. bu nga fóot et bu tilimee nga fóot nga xool noo def ak moom mais lekk moom mënoo toog une semaine deux semaines trois semaines lekkuloo boo lekkulee bu boobaa euh, say wax kenn dootu ko waxati mm-hmm. donc la souveraineté alimentaire est une préoccupation parce que moom bokk na ci réponse yi nga xamante ne dëggantaan moom moo mën a tax nga mën a maîtriser dëgg parce que gis nga affaire wu du dama bëgg Sénégalais yi xam ni nekkul loo xamante ne da ngay xëy rek Euh, euh, d'un coup de baguette magique nga def mu wàññeeku dans la durée okay. maintenant parce que euh, dafa am lu ko indi la moo tax sa sa njëg cher mhm. parce que da ngay jéggaane daanaka yow li ngay lekk yëpp tey jii nii ci wàllum dund bi par exemple dundin bi la tax mu cher mooy dangay ngay jéggaane lépp li ngay lu gën a bëri ci en tout cas ci li ngay lekk tey biir Sénégal dañ ko jéggaane importation yi dul jeex surtout quasi la dafa gën a yokk déficitu balance commerciale mais forcément moom moo ko indi bokk na ci li ko indi moom ak yeneen affaire ah matériaux de construction yoo xamante peut-être amu fi euh, ciment peut-être ñu ngi ko fiy defar mais am na yeneen yu bëri yoo xamante mu ngi jëm ci dëkkuwaay yoo xamante bon pareil le aussi mu ngi commencé am am na ay sociétés yu fi nekk di defar fer et mais ba tey du tey am na ñoo xamante ñu ngi importer fer ponk euh, souveraineté alimentaire bi mhm. donc li ngay lekk li ci gën a bëri da ko jéegaane da nga koy importer importation boobu noonu dafay ànd ak li may woowee li nit ñi di woowee sax li ñu woowee inflation importée maanaam yow maîtriser wuloo tey jii nii euh, euh, da nga lan la moo fi xew fii daaw dañoo jékki-jékki prix yo yokku la moo ko yokku mhm. parce que guerre Russie Ukraine blé dafa dafa dafa dafa manqué mhm. nest pas ñu jékki-jékki ba tey guerre Russie Ukraine am impact ci Euh, logistique bi maanaam le transport mm. le cours du pétrole est monté et donc les hydrocarbures ont, ont, ont augmenté le prix des hydrocarbures a augmenté mm-hmm. et on s'est retrouvé avec le fret donc le coût du fret maanaam li ngay fay pour ñu mm-hmm. transporter la say conteneurs yi ngay importer pour mu ñëw moom tamit mu yox mm-hmm. mais quasiment bu doublewul tamit c'était des augmentations faramineuses et loolu nan ngay def nga yaakaar ne dañ koy day perte lay doon ci ki nga xamante ne mooy importer déedéet moom dañ ko koy appliquer mu delloo ko appliqué ko ci ay prime bu ñëwee fii nii bu bu matériel marchandise bi exwee ci réew mi mhm. ba tax na tu te retrouves avec une inflation importée parce que maîtriser wuloo ko donc souveraineté bi foofu la amee solo bu fekkente ni yow la nga doon lekk yëpp li ci gën a bëri wala lépp sax totalité bi yëpp fii lañ koy muy ceeb muy soble muy parce que soble bi fii nii dal nañu fi exemple boobu dama ko joxee tout le temps on a eu près de 400 000 tonnes de production ñu toog mais benn instant mënuñu ko woon stocké ba dañ ko perte mhm. la moo ñu dab après ay affaire inflation jóge temps yi nii maa ngi déglu euh, rajo bi euh, ñu naan kilo soble 300 francs xaw ma 400 francs mais lu yàggul dara màggal bi fii nii on parlait de kilo soble 1500 francs mm-hmm. donc yaa ngi yaa ngi gis affaire boobu noonu c'est-à-dire quitter de 1500 francs à 300 francs ci biir même réew bi parce que justement période de demande bi forte day fekk amuñu woon euh, à donc on se retrouve à subir euh, la tension entre l'offre et la demande gars yi yokk seen i prix et cetera dafa di loo xamante ne dañ ko war a dakkal mhm. te leneen mënu ko dakkal lu dul ñu daal di fexe soble si nga xamante ne ñu ngi koy bay fii te ñu am suuf su nangu moo xamante ne mën nañ cee bay li ñu soxla nee naa la 400 000 tonnes yi largement suffisant du man maa ko wax expert yee ko wax mhm. donc bu fekkente bay benn bu fekkente ni nekkul stockage bi nañu fexe ñu maîtriser ndox bi ba nga xamante ne au lieu ñuy bay ay 3 mois ki 4 mois ñu fexe pendant pratiquement 12 mois sur 12 parce qu'on a maîtrisé l'eau ñu mën a fexe di di di di di di di bay tout le temps en continu donc mën a am toujours une production euh, en continu bu ajusté wu avec la demande en continu également tey ci wàllum ndox boobu noonu par exemple boo ko bëggee maîtriser mais fleuve Sénégal bi kese. Mhm. c'est presque dix milliards de mètres cubes. Mhm. yoo xamante daf excédent de débit boo xamante ne daf koy sànni ci géej bi chaque chaque année. Mhm. nga waroon mën a yaa ngi doon wax justement demam demam bi mu dem Mauritanie. mais bokk na ci li nga xamante ne moo tax affaire du affaire gaz bi kese bokk na ci li nga xamante ne war nañ ko mën a waxtaan ak le président de la Mauritanie suñuy voisin lañu suñuy nawle lañu ñu nag Mauritanie benn lañu. Mhm. Sénégalais yi nekk Mauritanie man nee la dañuy liggéey Mauritanie man su ma demee Mauritanie damay làkk wolof damay làkk pulaar damay mel ni nekk gënuma Sénégal yàlla xam na loolu xanaa bu ñu commencé làkk arabe bi laay réer mais sinon la français pulaar wolof je me sens à l'aise là-bas et donc dafay wane ni que ñaari réew yi daanaka benn lañu et war nañoo mën a waxtaanee suñuy projet de revivification ou de revitalisation des euh, des vallées pour ndox mi nga xamante ne maanaam euh, euh, euh, yoonu ndox yi nga xamante ne dafa nekkoon ci biir réew mi ci biir réew mi di jógee ci noor bi di wàcc ba ci sud bi quasiment yooyu noonu naka la ñuy def pour jëlee ndox ci kaw wàccee ko daal di revitaliser leen pour mën a am ndox un peu partout ci biir réew mi. Mm-hmm. ngir mën a ça les eaux de surface. dinañ mën waat. moom en même temps ci moom la ñu war mais loolu mooy objectif bi parce que nee naa la il faut nga fexe suuf si baax na fu ne bala ngay xam ne suuf Sénégal baax na fu mooy nga mu nawet ñëw mu commencé taw nga dugg ci àll bi foo romb mu am ñax bu amee ñax kay ça veut dire que foofu mën nañ fa bay nañ waxante dëgg mhm. li ci des mooy ban lañ fa mën a bay loolu expert agronomie ñoom ñoo mën a wax ne fii da xeetu mbay lañ fi mën a def et mais c'est extrêmement important ñu xam ne ni que souveraineté alimentaire boobu wàññi njëg li moom dans la durée amul lu ko mën a indi lu dul sa souveraineté alimentaire maintenant euh, puisque xam naa ne nit ñi yaa xamte nañu mënuma jiitu Euh, le gouvernement ni le président ni son gouvernement ci naka la ñu nar def mais am naa ci xalaat. Mhm. jàpp naa ni que ñaar rek nga mën a am. y a ce qu'on appelle les maanaam ay matuwaay yoo xamante ne da nga koy jël pour léegi léegi jooni jooni ñu mën a xaw a xam nga par exemple boo bu kenn ñaanu ko yàlla mais nit boo xam bu amee accident. Euh, li koy faj dëggantaan xamaguñ ko sax. Mhm. parce que eggagoo fi ñu fi ñu la war a kii mais ci saa si dina am lu ñu dugg voilà les premiers soins dinañ la def dara loo xamante ne dina la stabiliser. Mhm. wàññi sa sa say métit pour que ba nga egg fi nga war a egg ba ñu jàngat dëgg-dëgg situation bi def diagnostic bi xool mhm. médecin bi xool ne ah ok kii kat lii moo dem ci moom lii moo yàqu ci moom lii ak ñu door a mën a teg un plan bu leer na un plan de soin. Mmh. n'est-ce pas eh c'est exactement la même chose pour Sénégal Sénégal dafa feebar feebar ci wàllu wàllu wàllu njëg ñi mmh. njëg yi pardon naka la ñu war a def am na loo xamante ne war nañu ko mën a def mooy subvention yaa ngi fi il faut voir moi je ne suis pas euh, euh, favorable à des subventions permanentes effectivement et à des subventions généralisées maanaam ñu jëlandoo subvention par exemple affaire courant bi soo xoolee ñu ngi subventionné ñëpp la ñuy subventionné woon daanaka parce que képp koo gis am na tranche sociale ci biir facturation daanaka loolu lu ñu war a mën a seetaat la am na ñoo xamante ne wax di yàlla bu fekkente ni yàlla defal na leen teraanga bu toll ni am na seen seen seen am-am ak seen mën-mën am na fu mu toll nañu xaar ba structurellement ñu teg fi ay projets yoo xamante ne dafay wàññi dëggantaan le coût de la production de l'électricité mhm. ñu door a bénéficier d'un d'une réduction mais li ma wax nekk engagé wul gouvernement mais yàlla def na sama xam-xam màcc na ci wàllu énergie mhm. donc dama xam ne loolu war a mën a nekk la bu fekkente ne vraiment yow yàlla dénk na la nga am yenn revenu yi am yenn capacité yi war nañu mën a tegg yenn subvention yi nga xamante ne yaa ngi koy bénéficier am na ñeneen kenn koo ne moom dëggantaan dafay sonn il a besoin de 200 de 300 kWh par exemple de subvention mais il ne va pas les avoir parce que ñun ñëpp la ñu bokk yemale ñun on a 150 de tranche sociale donc ça on devrait pouvoir dire bon tiens euh, euh, euh Euh, dafa néew doole donc moom war na mën a am 200 kilowattheures wala 250 kilowattheures de tranche sociale et non pas 150 kilowattheures comme tout le monde ñu ne Lalla Rasoul moom yàlla am na lu mu ko dénk eh bien euh, euh au lieu de 150 comme Amadou Ly peut mën na am 50. Mmh. voilà yi nga xamante daf ko naroon jël ñu jox ko Amadou bi nga xamante moo ko gën a soxla mais tranche sociale bi aussi causé wul li nga xamante ne moom problème bi am ci ci électricité bi. non du tout. Euh, problème bi am ci électricité bi maanaam par rapport ak subvention yi nga wax et mhm. loolu c' encore autre chose c' dire c' est c' aujourd'hui de la gestion de Sénélec loolu mooy dëgg bi. ak euh, choix yi nga xamante parce que énergie secteur énergie du secteur boo nga xamante ne dañuy làmbatu. parce que lépp invest bépp investissement boo fay def investissement bu am doole lay doon. c'est li ñu woowe un secteur intensément capitalistique maanaam pour nga def fa jéego. Mhm. dafay laaj nga dugal ci xaalis bu bëri. eh bien xaalis bu bëri nag boo koy dugal te di da ngay tandu yenn saa yi eh, xam nga ni kuy tandu di di di eh, incommode li muy wax c'est-à-dire que bu fekkente ne da nga war a doxal dara. Mhm. xamuloo totalement fi nga jëm wala xam nga yoon bi nga war a jaar. ni ñu la yii ma maanaam la euh, la maîtrise du matière. Euh, buñ la nee buñ la nee yoon bii nga war a jaar. ñu teg plan ne la plan bii nii ça ça existe c'est ce qu'on appelle les plans de production et d'ailleurs même aujourd'hui on parle de de plan intégré parce que y a production ko intégrer def ko en plan cohérent pour ne voilà lii mooy investissement ñu a def lii bu ko defee bu soobee yàlla fii ak euh, nangami at dinañu mën a am courant boo xamante ne njëg bi dafay yemb et cetera mm-hmm. mais fekkente ne da ngay ñëw def lu la neex euh, di gérer ay projet yu la neex parce que projet yooyu amaana am na loo xamante ne mën nga koo cee am ba tax na yow yooyu moo la yitteel nga teg ko mais yaa ngi sonal askanu Sénégal loolu moo fi am et loolu moo ñu rey leneen rey ñu. c'est pas autre chose gestion kese la du gestion bi mooy suñu problème du leneen c'est la gestion qui nous conduit à des contre-performances qui nous conduit derrière à ce que on n'est pas on, on se retrouve à devoir subventionner et que effectivement subvention bu atteindre ngi lay lebal xaalis xaalis ma lay lebal yëpp au lieu nga jël ko dugal ko ci investissement productif euh, pour euh, wala nga def sax ay développement social machin non non yow da ngay jël di def ay subvention ñu mënuñu la lebal xaalis pour que ngay def ay bor bi nekk fii amoo loo lu koy fay bu ñu dogaatee ba ci kanam nga ne woy dette bi sax nan laay def pour ñu gérer ko xaar na waxtaanee ko mhm. donc encore une fois pour bëgguma sax ñu focaliser ci affaire énergie bi mais énergie dafa di loo xamante ne pàcc bu am solo ci wàllu njëg mm-hmm. parce que c'est un facteur de production important lépp looy defar dafa soxla courant ñu ngi nii toog ci plateau bi clim baa ngi daw lamp yaa ngi tàkk émission bi pour mu dox il faut mu am courant mm-hmm. soo amulee courant leer na ma ni xaw ma je ne connais pas la structure de charge de cette société là mm-hmm. mais je suis sûr que boo laajte seeni oto et cetera donc c'est en parce que mm. loolu yëpp énergie la parce que le, le carburant aussi c'est du pétrole c'est du pétrole muy gasoil bi muy essence bi yëpp ci pétrole bi la fay lay jógee mm. donc encore une fois ce qui est extrêmement important mooy ni que il faut des mesures conjoncturelles donc des mesures mesures conjoncturelles yoo xamante ne maanaam ay ay ay yoo xamante ne bu ñu ko jëlee léegi léegi ñu war a mën a gis impact bi euh, nee naa la subvention bi bokk na ci bokk na ci peut-être euh, des leviers fiscaux fiscalité bi peut-être yenn xeetu taxes yi ñu xaw ko teggi pendant une certaine période te jàpp naa ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk réew mi tey ñu jiitu ci muy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. ñoom ñaar ñëpp seen xam-xam màcc na ci wàllu fiscalité ndax ci loolu ñu doon liggéey donc war nañu mën a peut-être euh, pas c'est pas parce que am nga ci technicité bi rek nag nga jiite affaire mais xam ko day nga gën a xam na ban yoon ngay mën a jaar jox ko nag techniciens yi ne leen acca euh, sëgg leen ci affaire bi ngeen xool ndax fii nii ñu fi mën a gis ay levier waxoon nañ ko man gisoon naa benn euh, émission boo xamante ne le le euh, alors je dis le président président du parti Ousmane Sonko waxoon na ko di wax ni que bu ñu xoolee liy génn ci ay nu ñu koy waxeeti fuite Euh, si xaalis boo xamante ne dafay rëcc fiscalité Sénégal mhm. euh, daanaka ay alal bu takku la euh, su ma jumulee y un chiffre qui était pas loin des milliards qui avait mhm. été évoqué mais peu importe le chiffre exact li am solo mooy dafa am lu bëri loo xamante mu ngi rëcc naka la def pour xool loolu naka lañ ciy mën a récupérer dara naka la def pour léegi-léegi xool ay mesures yoo xamante ne conjoncturellement ñu ne ah lii kat est-ce que ko teggi toog jàngat dëgg-dëgg lan mooy yoon bu baax bi nga xamante ne mën nañ ci jaar yoon bu baax bi nga xamante ne mën nañ ci jaar ci sama gis-gis encore une fois bokk na par exemple sur la question de l'immobilier ñu xool dëgg dëgg dëgg dëgg le foncier parce que mënoo nekk biir Sénégal ngay dégg ay zones yoo xamante ne dañu la naan fii nii un mètre carré un mètre carré maanaam benn parcelle boo xamante ni un mètre par un mètre ñu naan laan un million un million cinq cent mille francs lay jar mille cinq cent euros mille deux cent cinquante euros le mètre ce n'est pas ce n'est pas sérieux ce n'est pas normal. normal. Mmh. dans un pays comme le Sénégal parce que soo ko comparé ak tugal euh, l'Occident des zones dans lesquelles tu as un un un un mètre carré mais xanaa kay booy booy jënd mètre carré bi cher dafay fekk ni dafa am lu lu ko jar en terme mhm. d'aménagement en terme de de commodité en termes de de de service yoo xamante ne de service non position géographique rek de mënu ko justifier euh, euh, de service d' abord dire li nga xamante ne dafa bëri lu fi nekk ba tax mu am valeur boobu noonu mais da ngay dem zone yoo xamante ne à part justement position géographique bi amul leneen lu ci nekk. Mhm. après ñu bëgg ko jël bëgg ko def un million un million cinq cent mille mètres carrés après dafa am loo xamante ne c'est extrêmement important ñu ñu ñu ci. Mhm. donc loolu jàpp naa ni ça fait partie des priorités également du réellement la la la la la la la réforme euh, de, de du foncier au Sénégal. te te foncier euh, foncier yi dafa bari. litige foncier yi bari na litige foncière yi dafa bari parce que gis nañu benn parcelle da nga koy jaay nit. jaay ko deux exemple mu jur problème ñu dem tribunal yéeg ak wàcc ba finalement yow mi ci dugal sa sax da koy mujjee perte. loolu daf ñuy indiwaat ci li président wax xam nga am na benn bataaxal bu mu bind. daal di koy eggee. fonctionnaire la lettre ouverte la lettre ouverte. <laughs> te li ñu ci mën a jàpp mooy lan. principalement li mu ne euh, c'est c'est une sorte de doctrine maanaam gis-gis bu yaatu ak yéene bi mu am ci yoon bi ñu war a teg suñu bopp mu ne yoonu lan la ñu bëgg xam nga projet bi dañ ne woon yoonu dëgg. Mhm. loolu la ñu wax yoonu dëgg projet du Diomaye du du président Diomaye candidat loolu la ñu woon yoonu dëgg n'est-ce pas mais euh, yoonu dëgg boobu noonu dafay am solo ñu jiital ci di jub di jubal di jubanti. mooy ñett yooyu mu woo nga xamante ne daf ñu ci woo ñun ñëpp. Euh, nekkul loo xamante ne euh, man dama jàpp ni nekkul fonctionnaire yi ak administration bi kese ñoo ko moom. ñëpp la li ngay wax fii nii nit ku jub du def li nga wax fii nii jaay kii jaay kee ah nañu waxante dëgg. Mm-hmm. n'est-ce pas bu fekkente ni da ngaa jubadi ba def loolu nag ñi xamante ne ñoom ñoo war a. Euh, parce que à un moment ou un autre am nañu am na foo ko sekkee ak bi. mënoo mm-hmm. jaay sa terrain nii jaay ko ñaari nit sans aucun fekk amul benn instant. administration fu mu ci amee euh, moom tam wàllam. bu boobaa ñoom ñu jubanti yow boo jubadee jubaloo boo eggee si ñoom ñu jubanti. il faut que mu doon loo xamante ne ñu rëcc ci benn yoon c'est-à-dire il faut absolument que ñu ñu parce que lu mën a nekk la bala ngay gis nga Sénégal mën nga fi jéem a def lu la neex projet yu gën a mag alal bu la neex nga jéem a lijjanti dugal mais bu fekkente ni jikko yi defaruñu ko bu fekkente ni nit ñi defaruñu leen. Hmm. mën def lu la neex réew mi du bouger du bouger. parce que système bi li ñu woowee système système ku nekk danaan système mooy lan mais en fait système c'est pas autre chose que une façon de faire mm-hmm. du leneen ci biir façon de faire boobu nag les choses ne se font pas elles-mêmes mm-hmm. il y des gens qui font donc c'est à la fois une façon de faire et des gens qui font et donc nous devons les plus hautes autorités doivent montrer l'exemple wax yéene bi ñu am fan la ñu bëgg dem naka la ñu bëgg a demee et mais il faut aussi absolument que ñu fexe euh, vraiment sénégalais ci seen bopp jël loolu aakimoo ko def ko seen yëf parce que da nga koy gis ci koñ yow soo xool soo xoolee soo xoolee autour de toi da ngay gis ni que euh, xam nga ñu xam nga xel ni xam nga ay nit ñoo xamante ne ñii dañoo jub dañoo dañuy sellal doo leen mën a mënoo fexe ba fekk leen ci yëfi caaxaan. Mm-hmm. mais xam nga ñeneen ñoo xamante ne li li yàlla xam doy na. xam nga ko. Mm-hmm. ci sa entourage xam nga ko ñun ñëpp am nañ ko. Mm-hmm. donc à ce moment là il faut que nous travaillions. ah éviter ku nekk si ñun rek bu fekkente ni boo waree def dara di nga xam ne ah Amadou Ly kat saa li yàlla xam doy na kon du ma jëflanteeg moom. Mm-hmm. wala bu fekkente ni jëflante naa jëflante naag moom bu wàccee yoon du ma ci sax ut aw ma ci xaar ma yàlla dana may dem fu ma ko war a waxee tegaat ko ci yoon. Mm-hmm. bu ñu commencé développer culture boobu noonu xam nga ñun Yeesal en marche dafa am benn euh, idéologie bi ñu am dañu ne la démocratie responsable. xam nga démocratie responsable mooy lan mooy démocratie mooy effectivement on croit en l'idéologie démocratie démocratique et libérale donc euh, toutes les formes de liberté et en termes d'entre liberté d'entreprise de culte de ce qu'on veut mais dafa dama jàpp ni dafa am lu war a jiitu accès à la démocratie parce que dañ nekk ci réew moo xamante ne nit ñi dañu bëgg jàppee démocratie ñenn ñi bokk dañu bëgg jàppee pour ma bañ a maas nuun bi dañu dafa am ñoo xamante ne dañ jàppee réew mi démocratie comme étant l'anarchie dafa am ay baat ci suñuy suñu kàllaama sax yoo xamante ne dañ koy fësal nit ne la mbedd mi mbedd mbuur la donc damay def loola neex bul tuur waasin tóor ci mbedd bi nga tuur waasin tóor ci mbedd bul tuur ndox ci mbedd bi nga tuur ndox da ngay gis nit taxaw ñu bind défense d'uriner amende nangam mu taxaw di tuur ndox ci foofu ñuy bind loolu bul bul jéggi fii jaaral ci ci ci ci bi nga xamante ne dañoo justement det endettement dañoo def ay rey ci suñu jël <laughs> rey suñu bopp defar ay passerelle war ko fay on demande de ne traverser l'autoroute nga bëgg traverser autoroute bi mm-hmm. bu waxee nga ne noonu garaawul nañu comprendre compréhension boobu masla boobu la wàññi bu ko dindiwul totalement tamit ñu wàññi ko mais est bu bees boobu ngeen bëgg instaurer aussi est waaw mais dara lu baax du yomb parce que problème bi ngay wax nii dafay dem <coughs> au-delà de comportement mais mentalité en fait mais le, le comportement découle de la mentalité li ngay jëfe li nekk ci sa biir bopp bi moo koy moo koy moo koy moo koy dicté mhm. bu fekkente ni effectivement yow dafa am nu ñu la moo ñaalee yere la yenn valeurs yi am loo xamante ne dugal nañ ko ci yow mais yàlla xam na ni bu ñu ko nit nit dina la bëgg def loo dara doo ko def hmm, ci biir semaine bi rek maa ngi doon waxtaan ak nit yàlla defoon euh, ubbil ko ay buntam mu nekk ci ay environnement yoo xamante ne euh, vraiment macha allah mais en même temps euh, xaw a aussi exposé ci yenn dérives yoo xamante ne boo moytuwul bu fekkente ne gënuloo am éducation de base bu dëgër rek mën nga faa jaaree tarxiis def loo xamante ne naka sudul noonu la mais moom ci boppam mu ma doon expliqué naan ma ni que yàlla suturaal na ko papam fekkewul yaayam fekkewul mais à chaque fois que mu nekk ci condition yooyu noonu toujours elle li tax mu tenir boppam c'est parce que tout simplement éducation bi nga xamante ne moom lañ ko joxoon ba mu nekkee Sénégal tax na bu fu nekkee fi ay nit di naanee sàngara du fa naan sàngara fu nekkee su ay nit di jëfandikoo sinébar du ko fa jëfandikoo su nekkee ci foo xamante ne ay nit ñu ngi def naka sudul noonu du ko def loolu lan moo tax mu am loolu c'est parce que dafa am éducation bu dëgër bu fi nekk donc éducation mooy lépp éducation bi fépp la école yaa ngi fii nii diñ ci war a jàngale am na loo xamante ne tey sooxe na mm. donc c'est tellement vaste boo ci duggee sax dangay ngay da ngay génn yenn da ngay tarxir jëm ci yeneen <laughs> yeneen sujet donc mu ñëwaat encore une fois ci ci ci affaire wu njëglu cher yi parce que c'est important mhm. njëglu cher yi ma ne la tu as le foncier parce que kër yeeg yooyu et cetera tu as les matériaux de construction yow naka ngay amee ay usines yu nekk fii nii cimenterie yi prix bi parfois daanaka boo ko comparé ak ay dëkk yoo xamante ne amuñu cimenterie te amuñu géej amuñu dara donc ñoom seen importation tamit dafa metti ils se retrouvent à parce que ce soit un peu moins cher ou presque pas pas plus cher bu xawee gën a cher tamit du muy gën a cher taxu koo taxu ko bëri par rapport ak ñoom effort yi ñuy def pour am ko xam nga la moo ko waral. Mm-hmm. souvent par exemple la cimenterie dañuy ñëwaat encore ci énergie énergie bokk na ci poste de coût yi gën a mag ci cimenterie yi. yi gën a mag ba tax na sax ñoom yenn saa yi par exemple boo jëlee ay yenn centre cimenterie yi bëgguma tudd kenn mais ñoom dañuy parce que tellement courant waru fa coupé te courant dafa am am dafa am solo waru fa cher yenn cher yi bu cher yenn cher yi ñoom dootuñu mën a jaay ciment bi mais dañu leen war a gën a dooleel parce que fii am na calcaire am na ñoo xamante amuñu calcaire. Mhm. roche calcaire baa ngi fi nii c'est un des de base pour mën a defar ciment bi et cetera. Mhm. donc dafay am solo ñu xoolaat. est-ce que véritablement c'est pas par exemple tey benn genre oligopole moo fi nekk parce que tey am nañu suma jumulee ñett cimenterie ñu ngi fi wax sax waxi ñeenteelu cimenterie bu war a ñëw. boo xamante ni fi ñu ko bëgg a implanter wax nañ ne. mën na impacter naa ko te effectivement euh, une agression environnementale. parce que Bargny am na déjà centrale charbon. code environnemental bi aussi ñu bëri duñu koy duñu koy bàyyi xel bu ñuy implanter ay usines. waaw mais euh, loolu donc kon dafa fekk ñu def lu leen neex ñu ànd ci ak ñoo xamante ne dañoo nekk ci administration bi te jubaluñu jubbante wuñu te jubuñu <laughs> loolu mooy dëgg bi ndax bu fekkente ni fii mënoo fi def yenn yi fekk amuloo yenn genre installation industrielle mënoo ko fi def te amuloo autorisation administrative yi mhm. donc boo mënee def lenn parce que normalement ce genre de projet buy am dafay ànd ak li ñu woowee des études d' impact environnemental et social mhm. et étude d' impact environnemental et social boobu dafa war a génnee justement benn plan d' action de gestion environnementale et sociale le PAGES donc yooyu noonu bu fekkente ni defuloo ko en bonne et due forme euh, pour mu jàll wala carrément nga def ko mu ne la bu mu bu mu jàll mais nga lijjanti ba ba mu jàll ndax jubadi ki nga ko sekkal non waaw mooy mooy en fait mooy enfin taf yëngal plus que taf yëngal mooy lijjanti lijjanti boobu nag li koy indi mooy jubadi mais espérons que di ngeen ci dem jusqu'au bout aussi waaw loolu bon on mooy li ma wax cin bu naree neex bu baxee xeeñ d'accord li am solo mooy jéego yi am na solo kenn mënu naatable ni que yéene bii ne ku la ne dama dama leen di woo ci jub ci jubal ak ci jubanti defe naa ni jàpp naa ni kooku am na loo xamante wax na la ko ci yéeneem. kon gouvernement bi jàpp nga ni pas yi ñuy teg nii ñu ngi sur la bonne voie. bon c' est pas tegaguñu pas li fi gën a am solo bi ñu ñëwee léegi waaw en tout cas le président parce que c' le président qui définit la politique de la nation. Mm-hmm. joxe ay orientation le gouvernement met en œuvre la politique du justement bi nga xamante moom le président bi am na loo xamante ne mën nañu koo doyloo euh, mais euh, il faut attendre à l'épreuve de de de l'exercice et de la mise en œuvre des programmes et projets. à ce moment-là on verra véritablement quel est l'impact mais quand même les premiers signaux qui ont été donnés je considère que ce sont des signaux qui sont très positifs. et je le disais encore une fois sur la question de la vie c'est extrêmement important tu ne peux pas avoir une réduction si tu n'as pas de souveraineté. Mhm. donc tu as du foncier ici. tu dois penser à la réforme foncière pour casser la bulle spéculative du foncier bi fi nekk. Mhm. mënuñ fi nekk di ay terrain di am ay 1 million de mètres carrés 1 million de mètres carrés warut a nekk fii ci Sénégal warut a nekk wala bu waree nekk dafay fekk ñu egg ci benn niveau boo xamante ne tey eggawuñ foofu noonu benn beneen bi mënuñu jël Sénégal yëpp mu bëgg a dëkk dakaar mënul nekk. li ko indi nag mooy ñàkk am gis-gis ci wàllu décentralisation décentralisation mënut a yem ci jam ñaajo bi ndax jam ñaajoog Dakar benn la tey gis nga kër yi ni muy demee law na ba daanaka léegi jonction am boo yàggee da ngay gis diggante Diamniadio ak Dakar yëpp benn lay doon ndax fépp ñu ngi koy tabax donc c'est extrêmement important que ñu mën a xalaat pourquoi pas jéem a teg benn capital économique fu xaw a gën a sori fu xaw a gën a nekk ci ci diggu Sénégal nga xamante ne bu boobaa dina ànd ak les notions de pôle économique yi nga xamante ne wax nañ ko dans le projet dina ànd ak développement ferroviaire développement des moyens de des infrastructures de transport autoroute yeeg route yeeg et cetera ñu mën a décent décentraliser un peu plus génn déconcentrer un peu plus Dakar macrocéphalie bi fi am nga am xaw ma zéro virgule ñaata pour cent de la superficie et tu veux avoir presque vingt de la population qui vit ici c'est un problème il faut que nous soyons euh, beaucoup euh, euh, euh, ñu ko waxee yi ambitieux et gëm naa ni l'ambition elle est là avec ce projet là l'ambition elle est là avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye maintenant reste à la mettre en œuvre mooy li ma doon wax léegi léegi mm-hmm. et ça ce n'est que dans la durée qu'on peut qu'on peut qu'on peut le mesurer mais mm-hmm. clairement boo fexe woon ba ki nga xamante ne boo ko yóbbuwee Ndar day kontaan sax ndax moom foofu dina fa am brise marine bi ak dina am lépp et mais bu fekkente ne brise marine kese dafa moo ko fay xaar courant problème la Euh, euh, jàng bu nu mu ko bëggee problème la déplacement bi problème la yenn yenn yenn yenn yenn confort yi yoo xamante ne amoon na ko bu bu nekkee Dakar problème la xëy na toog Dakar moo koy gënal mhm. c'est la même chose ki nga yóbbu Kolda ki nga yóbbu Tambacounda ki nga yóbbu Kédougou ki nga yóbbu euh, maatam ki nga yóbbu Podor et cetera lii tax mu mën a sawar a dem dafay fekk ñu créer les conditions pour que le développement économique et social soit un niveau tel que ok mu mën ko jaral mu gënal ko mais ki normal c'est gis nga ni ngay demee bitim réew. Mm-hmm. di toog di namm Sénégal naan way way su ma mënoon ñibbi Sénégal et noon noonu ngay nekkee biir dakaar bu fekkente ni yàlla dafa ne fi yow doo dakaar waa par exemple nga jógee euh, Fuuta da nga sa xel di nekk tout le temps ay waay su ma mënoon tout le dem dëkki Fuuta da ngay gis nit ñi fii ne bu ñu retraité immédiatement lan la ñuy def dem toogiwaat foofu pour ñenn ñi bokk pourquoi parce que tou simplement en activité c'est difficile pour ñoom d'être là-bas confort beeg yenn facilité yeeg et cetera daf leen di manqué ba nga xamante ne du yomb pour que ñu mën mu mën leen a gënal dem toog ci seen région yi donc bokk naa bokk na pardon jàpp naa ni tamit bokk na ci li nga xamante ne dina euh, tax nit ñi gën a sawar ci mën a dellu à l'intérieur des des des des régions à l'intérieur du pays justement ñu am des euh, par exemple une vision le bon waxoon nañ ko ci campagne bi euh, président waxoon na ni booba candidat la jàpp na ni peut-être même que capital war na mën a nekk nu ñu koy waxeeti Ziguinchor mais loolu xëy na waxin la nii rek waxinu campagne mais au-delà de cela il y a quand même de pays au monde où on a des capitales administratives et des capitales économiques mhm. et aujourd'hui si ça se justifie même bu fekkente narul am impact tout suite mooy li may wax gis nga Sénégal li koy développer ak li koy defar nekkul ci 5 ans lay am loolu tamit bu ñu naxante ah, nekkul ci 5 ans euh, dafa am ay jéego ñuy teg est du li ngeen promettre xale yi aussi moom moo tax ñu jàpp ni peut-être coûte que coûte boo leen toogee di ñëw lépp du ñëwandoo mais lépp mën na Euh, mën si lépp mën nañ ci am yaakaar firndeel ni que lii dina ñëwi am lu ñëw léegi léegi am lu ñëw un plus tard am lu ñëw encore un peu plus tard noonu rek la réew mën a defar Sénégal mënta mënta weesu nekk réew le Sénégal est un pays comme tous les autres pays le Sénégal ne peut pas euh, comme par magie jékki-jékki euh, def fi lu fi kenn mës sa def ci àdduna bi il y a un processus de développement le développement est un processus itératif qui prend du temps maintenant il se trouve que li am solo mooy jéego yi ngay teg mu doon ay jéego yu leer yoo xamante ne nit ñi bu ñu ko gisee dina dal seen xel ñu ne ah ñii kat fi ñuy teg seen tànk fi ñu teg seen tànk baax na wax nañ ko sànq nañ defar jikko yi loolu kay soxlawul long terme defar jikko yi soxlawul long terme parce qu'il suffit qu'on soit plus rigoureux plus maa ngi doon wax sànq la notion de démocratie responsable que je je ne suis pas allé à terme euh, euh, au, terme de mon li ma doon wax foofu noonu mooy ni que tey bu ñu la nee démocratie responsable mooy ni que responsabilité nit ki la ñuy ñëkk a avant ngay mën accéder à une quelconque forme de démocratie bu ñu nee mbedd mi mbedd mbuur la lu muy signifier justement moo ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñu ko bokkee ñun ñëpp ça veut def lu la mm-hmm. eh fa def lu neex ça veut dire quoi ça veut dire que euh, normalement pour nga def fa dara il faut que nga diisoog ñi nekk askan loolu mënul nekk mm-hmm. loolu la moo koy tënk moo tax ñuy def ay lois et des règlements lois yeeg naka la ñu war a nekkee ci espace public yi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk donc nañu appliquer loi bi te bokk na ci li nga xamante ne dafa bokk ci gis-gisu euh, président euh, Diomaye euh, de justement ñu delloo être dans rétablir l' état de droit jox justice gëddëm ba mot sëkk te di doxal mbir yi teg ko ci yoon sans mu am teg ci concak lijjanteeg machin yooyu yëpp la ñu war a. <laughs> vous faites <laughs> allusion war a bàyyi. au gouvernement sortant. ah non pas au gouvernement sortant ah bien sûr. <laughs> <laughs> alors c'est important comme ni mu ko waxee euh, donc dañuy ñëw très rapidement ci dernier point bi. Mhm. muy wàllum réduction des comptes. d'abord si passeport yi retrait passeport yi. jur na polémique bu rëy balaa ñu ñëw sax carrément ci réduction des comptes. bon affaire passeport yi effectivement coowal passeport yi jur na bu rëy. mais moi je comprends passeport diplomatique yi. mais je ne comprends pas pourquoi mu mën a mu mu am coow warut boo xamante ne yow li tax ñu joxoon la ko mooy. dafa am fonction boo doon ndombal tànk bu ñu la takkal ci turu askan wi. Mhm. ñu ne bu fekkente ni ndombal tànk bi yaa ngi ko yor euh, sa dem ak say dikk dañ ko bëgg a yombal donc cër ñu jox la ko pour que sa dem ak sa dikk yomb ak sa kaaraange gën a gën a ñoŋ boo génnee. Mhm. parce que y a une protection qui va avec et mais parce que ambassadeur woon maanaam ndawal senegal nga. waa léegi yow bu ñu la tekkalee ndombal tànk boobu la moo <laughs> la moo sabab ñu war la bàyyeeg <laughs> li li ànd ak moom yëpp mënta nekk. loolu mun ta nekk dégg naa ñu wax waxi décret boo xamante ne génne le 28 mars état il faut l'approcher c'est c'est c'est enfin bon le président fera ce que on n'a pas le droit de dire il faut sama xalaat lay wax <laughs> on ne peut pas donner d'injonction au président loolu moom suñu xel xalaatu ko sax mais sincèrement lan la ñu waxante dëgg tu es député tu n'es plus député bu jeexee tekkil tu es ministre tu n'es plus ministre bu jeexee tekkil tu es directeur général d'une société euh, publique euh, euh, euh, nekkatoo ko bu jeexee tekkil maintenant mën naa comprendre ñu ne par exemple par rapport ak li nga jot a servir sa réew est-ce que ñu xëy rek wàccee la après bon peut-être nga war a dellu comme ñëpp di rangi pour uti visa et cetera ñu <laughs> mu xaw a xaw a jafe tuuti bon. xëy na euh, euh, une solution intermédiaire mën na am. Mhm. xëy na ñu mën a xool naka la ñuy euh, négocier ak suñu parce que suñuy suñuy suñuy suñuy xarit ñoo fi nekk. Mhm. ambassadeurs yi fi nekk yenn ambassades yi fi nekk yi réew yi nga xamante ne suñuy réew xarit la ñu. Mhm. mais ñu waxtaan ak ñoom pour que bon koo xamante ne nekkoon na ancien X ancien ministre ancien député ancien DG de société publique xaw ma lan ak lan en tout cas koo xamante ne ndombal tànk askan wi amoon na ko amatu ko ñu mën a xool. xëy na naka lañ koy yombalalee accès à son visa et cetera ak genre yooyu noonu. Mm. mais vraiment di yor passeport diplomatique. parce que da dem ba après après passeport diplomatique bi dootul am ku nekk mën na koo am. ku nekk mën na ko utiliser euh, et puis au-delà de bu rëy en fait ci affaire passeport diplomatique yi ça fait presque ay deux ans trois ans bu ñu defee constat ñu bëri amoon nañ ci accessibilité bi mais parce que dafa dem ba nga xamante ne dafa mel ni kii boo xamante ne ci marché bi nga koy foree quoi alors que c'est quelque chose d'extrêmement important mandarga la boo xamante ne dafay jëmmal cër boo xamante ne askan wi moo la ko jox dénk la ko boo ko banaliser sax yaa ngi yaa ngi banaliser Sénégal ci boppam est-ce que yow bëgg nga ñu banaliser Sénégal est-ce que sénégalais yi bëgg nañ banaliser Sénégal waaye léegi la moo tax ñu war a mën a bëgguñu ñu banaliser Sénégal yow bëggoo man bëgguma keneen bëggul ñu banaliser Sénégal mais ñuy jëf-jëf joo xamante ne dafay banaliser Sénégal parce que bu fekkente ne dafay dem ba mel ni xottu këyitu gerte boo xamante ku ko nekk ci mbedd mën nga koo for dem naan way naa sama passeport diplomatique loolu du dëgg yoon du dëgg du yoon donc il faut qu'on rétablisse cela de faire en sorte que ñi ko yellool am ko ca fañ ko war a amee su jeexee jeex na maintenant peut-être exceptionnellement des gens comme ancien président de la République éventuellement ancien premier ministre éventuellement ancien président d'institution comme l'Assemblée nationale pourquoi pas ñoom mën nañu sax à vitam aeternam avoir ça parce que institution la mm-hmm. mais vraiment parce que te lim bi du bëri ndax nekkul ñëpp nekk mais ñaata ministre ñoo jot a jàll fii nii ba ba gouvernement yi commencé ba léegi depuis que le Sénégal est indépendant nga bëgg tey jii nii ak ñi nga xamante ne sur les gouvernements récents yi nga xamante ne yàlla def na ñu ngi fi ba léegi yàlla na yàlla euh, euh, guddal seen fan mais euh, ak wéral seen i cër mais ñooñu ñëpp nga bëgg ñoom ñëpp ak seen i njaboot et cetera nañu am ay passeport diplomatique du dëgg yoon mënta nekk saa waay boo paree daal nga dellu ci parce que aussi xool dans les pays scandinaves là mooy mm-hmm. mais mais il faut sa à dire la culture c'est de servir c'est pas de se servir il faut que ñu dugal loolu suñu bopp yi cest à yow boo demee ba ñu dénk la loo xamante ne ñëpp a ko bokk lan la da nga doon ndawal askan wi. Mhm. ndaw askan wi nag dafay dox ci li nga xamante moom mooy bëgg-bëggu askan wi mais ba fekkente ne askan bi nee moom bu la dénkee dénkatu la boo paree mais delloo ko yëfam mais moo tax nga bëgg a ay passeport diplomatique di sonal li ñuy fii nii wax dëgg <laughs> Euh, gis nañu ne aussi euh, ñu bëri ñu ngi wax ne est-ce que bu yàggee du nekk sas aux mais quand euh, li fi jot a xew yow xew yëpp aussi foog ñu leeral ko. waaw en fait il faut savoir que la reddition des comptes ça n'a rien d'exceptionnel yoon la moom comme comme affaire passeport diplomatique yi la rek mais c'est normal que bu la askan wi dénkee. boole ci jox la ay ndombal dënk la ndombal tànk jox la ndombal tànk boole ci jox la ay mandarga comme euh, euh, ni ñu koy waxee ak i ak i du ma ko woowee teraanga mais en tout cas cër ak grade ak cër <laughs> ah la mhm. jox la ay passeport diplomatique fii jox la voiture véhicule de fonction fii jox la lii jox la lay et cetera def lu nekk mhm. waa léegi après mu dellu tamit jël alalam dénk la ko ne la doxal ma doxalal ma ci ay projet xalaatal ma ci wala jiital ma euh, ñeneen i sénégalais ngeen ànd di xalaat di teg ay projets yoo xamante ne dafay ñoŋalu dundinu dundinu sénégalais yi n'est-ce pas. Mm-hmm. dafay suqali Sénégal n'est-ce mm-hmm. waa léegi nga pare nga ne doo wax ni ñi waruñu sax yow normalement waroo sax xaar. ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay. ñu lay ñu cas de Mame Mbaye Niang moom wax na ko. nee na moom buñ ko convoqué pare na pour dem wuy ji. waaw alhamdulilah xam nga xam nga aussi daf fi amoon ay propos yu fi jaar si ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci gouvernement sortant bi comme quoi que dañ leen épinglé. te mhm. yooyu aussi dafay baax ñu leeral ko pour ñu xam exactement euh, ba xam ñoom ñoo nekkoon ci dëgg wala aussi wax la yoo xam ne dañ leen ko doon wax comme ça. waaw xam nga loolu c'est da ngay en train de prendre euh, un des cas personnels ou des cas particuliers Mame Mbaye Niang ak keneen ak keneen. dégg nañ fi non non bëri nañu par exemple wane nañ fi non mën nañ jox beneen mën nañ fi jox beneen exemple gis nañ fi euh, Mansour Faye ñu filmer ko muy dem nag di def déclaration de sortie ou di récupérer formulaire pour mën a def déclaration de sortie et cetera c'est très bien tout ça. Mm-hmm. c'est très bien tout ça mais maanaam du xew-xew ça doit être banal boo jiitee. loo xamante ne ñëpp a ko bokk dafay baax booy génn bul xaar ñu woo la yow mi nga xamante ne Eh, leer yow xam nga wóolu nga sa bopp ni nga li nga def leer na yow yaa war a jiitu sax ci nekk maa ngi nii acca kaay leen ñu xool mu ngi nii lii laa defoon ak et tax na sax dafa bokk ci li nga xamante ne eh, ñun bokk na ci nga xamante ne xalaatoon nañ ko ci eh, ci sunu projet bi ñu façon yéene jébal askan wi te bokk na jàpp naan ci li nga xamante ne du ñàkk dina ñëwee ci projet bi mooy la transparence dans la gestion une continuité parce que affaire bi sax warul nekk ay ba ngay dugg lan la ba ngay génn lan la war na mën a nekk en continu je reprends encore les pays candidats parce que mooy li ma la wax cest dire li ko waral nag mooy li tax ma leen di jël comme exemple c'est parce que tout le temps ñoom li ñuy jiital mooy service la ñëwuloo pour defaru <laughs> da nga ñëw pour defar. Mm-hmm. et ça c'est extrêmement important da nga ñëw pour defar defaral askan wi ñëwuloo pour defaru dow defar yow sa bopp ak defar defaral say say ñoñ ñi ànd ak yow déedéet. et ça c'est extrêmement important que ñu bàyyi ci xel ba tax na man jàpp naa ni que on devrait avoir mettre en place on a dit digitalisation. on a dit transparence loolu yëpp bokk na ci nga xamante ne ñu ngi koy wax ci projet bi bokk na ci li nga xamante ne war nañu ko mën a def à chaque fois parce que c'est quelque chose que j'avais ba may ut mairie Kër Massar Sud au niveau de Kër Massar Sud ma commune. 2022 mhm. may dem dama ne woon man bu yàlla defoon ma falu maire. damay mettre en place une plateforme boo xamante ne saa su ne bépp doomu Kër Massar boo xamante ne bëgg nga xam. Mhm. gafaka askan wi bokk moomeel bi. Mhm. gafaka gi lan moo ca nekk nan nan la maanaam budget bi lan la. Mm-hmm. ak engagement yi lu mu doon maanaam li nga xamante ne fas dañ ko yéene def lu mu doon. Mm-hmm. ak dépenses réelles yi maanaam li nga xamante ne jot nañ koo exécuter lu mu doon. Mm-hmm. ak ñaata moo def. ak investissement yi. lépp mu leer nañ mën a la à chaque fois da nga te lépp loo bëgg a xam nga xam te boobu loo bëgg am justificatif boo duggee di nga ñëw fekk ko foofu noonu mais loolu mooy yoon. waxuma nga ñëw ba ci déplacé wu da war a mën a du jël sa téléphone wala jël sa ordinateur connecté wu xool mu nga gis. bu fekkente ni xamuloo loolu bu fekkente ni danga bëgg a ñëw ñëwal sa bopp ba ci biir maire bi nga gis mais nga ñëw nga fekk nga gis mhm. c'est comme ça qu'on doit tenir les choses waruñu xaar naan ba ay cour des comptes ñëw na xool ak ay xawma ban beneen organe de contrôle de ñëw na c'est bien ñoom dañuy ñëw IGE et cetera tout ça dañu war a ñëw pour firndeel ni effectivement li nga wax noonu la dafay baax am keneen ku contrôle doo wax rek ñu gëm la noonu Mm, parce que oui je mets en place une plateforme en ligne mais si je mets des fausses informations dans la plateforme <laughs> loolu doyul donc il faut bien que quelqu'un vienne vérifier mm. mais quand même dañu toll ci jamono moo toll foofu c'est-à-dire dañu toll ci jamono de la transparence maison de verre gis nga bu yàlla defoon nga ñëw ak yi da nga gis ñu nu ñu ñu ñu ñu ñu defaree suñu cest dire c'est amul mur ay kii la ay euh, vitre la transparente partout parce que l'esprit c'est ça nous devons être transparents damay wax nit ñi tout le defal jàmm parce que ñu ngi lay xool ñu ngi lay gis. Mhm. ñu ngi lay dégg itam. et c'est important personne n'est parfait on peut parfois s'être trompé pour x ou y raison et à ce moment-là on justifie pourquoi est-ce qu'on s'est trompé mais ce qui n'est pas acceptable c'est que des gens usent de leur position. maanaam ay nit ñoo xamante ne dañuy sukkandiku ci ndombal tànk yi ñu leen dañuy jël euh, nu ñu koy waxee di wéeru ci ndombal tànk yi nga xamante ne moom lañ leen dénk ci turu askan wi. pour muy jël di lijjanti seen bopp di lijjanti seen i seen i mbir ak mbiru loolu moom loolu wax dëgg yàlla loolu dafa war a dàq ci réew mi. voilà te askan wi foofu la ñuy xaar donc c'est pas une question de chasse aux mm-hmm. maanaam bu kenn jàpp ni que dafa am ay nit ñu tam dëmm bëgg leen a euh, euh, nu ñu koy waxee ci toroxal wala wala règlement de compte. wala bëgg leen a bëgg a du fayonte du toroxal du euh, euh, euh, nu ñu koy waxeeti soxor. Mhm. c'est une demande sociale et puis il y a xam ne daf fi am. la te tey leeragul. ma ni mhm. c'est une demande sociale. c'est-à-dire que loolu askan wi ci boppam. moo koy mhm. xaar. askan wi ci boppam moo doyal ci di dégg diw mi démb xamuñu ko woon ci dara jékki-jékki ñu naan eh, immeuble bi moo ko moom immeuble bi moo ko moom lii ak lii eh, eh, tool bii moo ko moom parce que mm. loolu moo fi nekk ci réew mi da ngay dugg ci àll bi bëgg a lijjanti tool ñu ah, tool bii diw moo ko moom te diw bu yow mu leeral ni diw bi amul woon dërëm yaa même pas trois ans quatre ans derrière d'accord et ñu war a nangu loolu mais il faut te te du entrepreneur maanaam bu mm. nekkoon sax entrepreneur boo xamante ne nañ ko activité privée mu ci këru liggéeyukaay boobu la ko liggéeyee ba yàlla may ko ci wërsëgal ko ci suturaal ko mm-hmm. si na mais yow koo xamante ne ndombal tànk askan wi kese nga doxee mu ànd ak i teraanga ànd ak i cër ànd ak i lu ne ngay wàcc bëgg wàccaale ak leneen <laughs> ah déet du waa ji waxoon nag teg ko fi. <laughs> <laughs> teg ko fi bu yóbbu teg ko fi. yaa xasee wax man ko ah, alors maa ko wax ku bokkoon bi nga xamante ku bokkoon ma ni ku bokkoon na nga bokki teg waaw ku yóbboon delloo sil woo na gars yi si loolu de te nee nañu gars yi ku yóbboon delloo sil ku yóbbu woon delloo sil ku bokkoon bokkil nga teg waaw balaa muy ñaaw. kenn fi topp ñu fi kenn mais teg rek waaw. d'accord en tout cas ñuy ñëw dañuy jeexal très rapidement euh, gis nañu système de pointage bi nga xam ni commencé nañ ko teg ci administration yi muy heure de pointe yeeg heure de descente yi pour gën a mettre euh, euh, rigueur bi au sein des des de l'administration sénégalaise bon pour être honnête je ne suis même pas sûr que ce soit l'œuvre de de la nouvelle équipe. Okay. parce que quand il y des procédures d'achat mënoo ñëw nii rek matul sax une semaine deux semaines ñu ne teg nañ fi ay système de pointage peut-être que c'est la nouvelle équipe peut-être que c'était déjà une initiative qui était là. mais état continuité la et mais li gën a am solo fi ma bëgg a ñëw mooy ne que système de pointage kese doyul parce que ñun ay chefs mhm. ñuy gis xam nañu tamit entreprise ni public comme privé li am solo c'est pas seulement ban heure nga ban heure nga mais c'est aussi la productivité. xam nga des comptes rendus activité ñoo xam ne parce que mën naa ñëw tey jamono toll na foo xamante ne mën naa gérer ay business di ko gérer si sama téléphone bi fekk bougé wu ma maître. <laughs> bu fekkente ne dama donc da nga bëgg wax ne war nañu am ay rapports hebdomadaires. il faut aller plus loin des comptes rendus activité la digitalisation permet de pouvoir en permanence savoir quelle est l'activité réelle des gens. donc nañu xam nit ñi lan la ñuy def tey boo wàccee yow lan la nga ne waaw tey de telle heure à telle heure lii laa def mhm. de telle heure à telle heure lii laa def de telle heure ñun nit man da nga xam ndax dëggantaan def nga ko et puis bu fekkee ne yaa ngi ne liggéey naa ci lii liggéey naa ci lii liggéey naa ci bu yàggee ñu ne la waa ana rapport bi ana ana output bi maanaam ana lan moo ci génn ana lu lan la jural askan wi ana lan la jural service bi mais maa ngi maa ngi maa ngi rek te parce que ñëw chaque jour heure di pointer heure di wàcc heure ça ne suffit pas mhm. bokk na ci li nga xamante ne euh, baax na et xëy na sax war nañu mën a toll ci rapport de confiance boo xamante ne souplesse parfois baax na ci mais li am solo mooy la productivité parce que ce qui pose problème c'est qu'on puisse avoir des des services administratifs inefficients ñu jël xaalis bu bëri di ko ci dugal mais la fonction publique représente énormément d'argent sur le sur sur le budget de l'État je pense qu'on parle de plus de milliards et quelques de de de mm-hmm. j'imagine que les enseignants sont dedans mais c'est c'est a pas que. Mm-hmm. y a pas que donc loolu. c'est c'est important ñu xoolaat bu baax a baax a baax euh, euh, euh, naka la ñuy def ba mu gën a ñoom mm-hmm. te autorités yu bees ñoom ci loolu la ñu woo donc jéego yu ñëkk yi gëm naa ni dafa di loo xamante ne jéego yu yu yu baax la li ci des mooy ñu xool ko encore une fois ñu toppandi xool fu ci ci mujjantal ga fan lañuy fan fan la ñuy yóbbu incha allah. merci beaucoup je crois que amoon nañu plaisir dalal la presque jeexal nañu li nga xam ne moom mooy temps bi. <laughs> Euh, fi ma bëgg nga terminer fa très rapidement mooy tey ñu ngi ci benn euh, situation wala benn climat boo xamante ni euh, géopolitique bi dafa am benn place boo xam ne occupé na ko te tey comme quoi qu'on puisse dire Sénégal war nañu dem ci li nga xamante ne moom mooy pétrole bee gaz bi nga xam ne dañ ko war a produire juste un petit message par rapport ak loolu ak fi ñu jëm. waaw bon euh, pas seulement par rapport ak pétrole ak gaz bi. xam nga maa ngi koy wax sànq man ne la Sénégal du pétrole ak gaz kese moo fi am mine yi boo doon xool. Hmm. or baa ngi fi fer baa ngi fi zircon mu ngi fi yeneen ak yeneen phosphate. mu ngi fi bon uranium bi sax ñu koy wax et cetera mais je veux yi nga xamante ne moom lii de parce que. uranium euh, uranium certainement que c'est palpable aussi. Hmm. mais je ne connais pas le, volume des réserves et cetera. Mm -hmm. et surtout pour avoir travaillé dans le nucléaire xam naa ni. lii tax nga mën ko exploiter dëggantaan xanaa nga juste pour la partie euh, nga signé ay contrat euh, pour que mu am ku mel ni Areva ex Areva euh, ñëw fi toog di la defal enrichissement bi di jël minerai bi di ko génnee di et cetera bon bref xanaa loolu mais bu fekkee ne c'est pour aller au bout la chaîne euh, mmh. faire par exemple des réacteurs nucléaires c'est euh, quelque chose qui peut prendre du temps beaucoup de temps même mm-hmm. mais li gën a am solo mooy encore une fois suuf saa ngi fi c'est une ressource mm-hmm. ndox maa ngi fi c'est une ressource naaj baa ngi fi c'est une ressource à la fois énergétique pour l'énergie euh, électrique mais également pour l'agriculture mhm. n'est-ce pas ensuite euh, euh zircon baa ngi fii fer baa ngi euh, euh, a ngi fii or baa ngi fii phosphate baa ngi fii donc tout ça mis ensemble vraiment le Sénégal est un pays riche et donc mmh. ce que ça pose ce n'est pas seulement la question du pétrole et du gaz mmh. c'est comment faire pour dëggantaan meññeenteef yi nga xamante ne mu sunu biir suuf naka la ñuy def pour dëggantaan ñu moom ko aaki moo ko fexe ba am dégg naa ni phosphate bi par exemple ICS vers septembre le contrat bi di jeex avec Indorama. Mm-hmm. eh bien c' est l' occasion de <laughs> de xool avec le secteur privé national. <laughs> gars yi acca lijjanti leen taxaw leen ngeen de pêche yi aussi novembre la war a jeex. 700 kilomètres de pêche. Euh, de pardon 700 kilomètres de côte de large. 700 mm-hmm. kilomètres de côte loolu tamit kii la euh, nu ñu koy waxeeti euh, alal la. c' est c' est une vraie richesse pour le Sénégal tout ça. sur le plan touristique mais également sur le plan effectivement des des ressources halieutiques parce que pêche bi ci secteur primaire yi la bokk actuellement euh, bokk na ci li gën a. sooxe na ndax licence de pêche yi ndax accords yi ñu am avec l'union européenne et mais loolu yëpp mais encore une fois état du caaxaan. Mhm. te xam naa ne ñi fi nekk xam nañ ni état du caaxaan donc du ñu parax paraxee affaire bi dañ jël temps c'est normal il y a une continuité déjà. il y aura des mesures transitoires conjoncturelles et il y aura des mesures structurelles René qui vont ñu ngi koy wax loolu yëpp lu contrat bu ñu mën a renégocier amul mais à un moment donné boo demee ba ci biir nag toog waxtaan waxtaan moom ça ne coûte rien mhm. mën ngeen toog ngeen waxtaan par exemple wax contrat gazier yi audit des coûts pétroliers parce que loo xamante ne par exemple pétrole gaz bi ñuy wax bi nii modèle de contrat bi ñu am ak ñoom bi nga xamante ne on dit c'est un contrat maanaam boo ñu defee production bi dañuy génnee ñoom seen coût yi nga xamante ne moom la ñu amoon ba pare lii des bénéfice bi ñu door ko séddoo waaw bu fekkente ni ñoom nag ci nit ñuy def dañuy arrangé wu pour que coût yi ñuy dugal mu gën a bëri kon lii des xam nga du bëri mhm. waaw donc loolu moo tax par exemple on avait estimé les coûts à 3,5 milliards de dollars on se retrouve milliards de dollars aujourd'hui on parle de presque 9 milliards de dollars mhm. ah, ne dañuy déggoo ànd euh, saytu xool mbir mi nu mu demee càmbar ko xool dëgg-dëgg coût yi fu mu jógee. Mhm. ba tax na lii da lay indiwaat encore ci importance bi nga xamante ne voyage bi président fas yéene def Mauritanie donc man daal li may wax mooy nañu ci wàllu ci suñu bëgg-bëgg ak ci suñu yéene moom suñu bopp mhm. moom suñu bopp mu ngi tàmbalee ci di liggéey ak doomi réew mi koom-koomi réew daal man li ma ci xam mooy doomi réew koom-koomi réew mhm. doomi réew c'est important merci beaucoup amoon nañu plaisir dalal la vraiment euh, di la jox sa wàccuwaay encore une fois. di la remercier ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi ba prochaine fois. waaw jërëjëf Lalla di sant yàlla bu baax a baax ba yàlla defee ñu tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahiim di ci génn ci alhamdulilah euh, bu fekkente ni am na ci kàddu yi loo xamante ne tarxiis nañ ci wala matadi nañ ci ngeen xam ne sunu matadi personnel la. Mm-hmm. bu fekkente ni jaar na yoon tamit ñu koy sante sunu borom. Mm-hmm. di am mbégte vraiment di jaajëfalaat gi parce que lii nii rek li may gis fii nii euh, dafay man en tant qu'entrepreneur daf may daf may neex gis ni taxawal nañu Sénégal set mu mel ni mu mel nii euh, euh, yàññ ba pare avec du matériel de la volonté de faire dañ ko war a dooleel dañu war a dooleel le secteur privé national man dama bokk ci secteur privé national doon acteur politique en même temps et c'est un choix parce que dama gëm ni li ma mën a def ci secteur privé bi dafa yem dafa dafa dafa néew par rapport ak yéene bi ma am ci Sénégal donc moo tax ma dugg ci politique ah. donc vraiment incha allahu taala donc vraiment li ma gëm mooy nikk que nañu dooleel entrepreneur yi nañu dooleel entrepreneur yi encore une fois les entrepreneurs sénégalais nañ leen dooleel ndaw ñi dañu bëgg liggéey fii am nay borom xel boromi xalaat yu sell yu yu yoo xamante ne macha allah bu ñu leen poussé rek ay bërigo ci mbartal lañu mhm. teg leen loxo tuuti ñu dem donc nañu fexe ñu jàpp ci encore une fois bravo à vous et bravo à toutes euh, toutes vos équipes et je remercie également l'ensemble des internautes qui ont suivi cette émission là ba beneen incha allah. merci beaucoup euh, ñun aussi am nañu plaisir amoon nañu plaisir dalal la ni lay demee saa su nekk sur Sénégal 7 restez connectés dinañu ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy yeneen i plateau incha allah may jaajëfal bu baax a baax l'équipe technique euh, plus particulièrement tuuti tonton Thiaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax su lépp normalé ñoom la teg la donc di leen jox rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf.